Walfadjri Lobugaz Mame Diarra Bousso mi sàmm kaaraange kiliyaan bi Jolof Chicken di ganaaru ëddekaay yu saf yi promobile pis mbégte sunu moomeel ak Sénéprot borom ndox Aquaterra sell te oyof ñoo leen di may seen émission Taku Show moo leen di may seen émission Taku Show ñu dellu siwaat ci kàttanu yàlla ci seen émission bile di Taku Show magasin bi leen di gungee ngoon si ñu dellu si nag tey ci alxames ji fas yéene ko ubbee seen rubrique kaddu mag ñi tey nag kaddu mag ñi Omar bun Xataab gee dana waxtaanee kenn ci sunu mag ñu baax ñi muy euh, Lamp Fall wala ñi naan ko Cheikh Ibra Fall euh, Babul dina ñu waxtaanee ay doom wala ñu waxtaanee googu li jëm pajum cosaan la ñu tey teg ànd ci ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mu waxtaan ak Alaaji Sanjoogu Mbeng bu ñu ca noppee daal di jàll euh, victime du net son bu jóob la ñu ciy àndal comme tous les jeudis ñu ndar keppe ko kaddu koc Aïcha mi ngi noonu Omar Bun Xatab Gueye ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay bu baax a baax di la ziar am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di la ziar bu baax a baax di la gërëm nag ci teewaay bi ni ñuy sant bu baax a baax ah mm-hmm. di nuyu son yi bu di nuyu Cheikh Bara njaay borom wax gis ah <laughs> def gis la léegi wax gis est-ce que doo boole ñaar yi léegi dal boole ñaar yëpp ah, ah. <laughs> ak El Hadj Ndiogu Meng saa ñu koy nuyu bu baax di ziar ñëpp tamit di leen gërëm di nuyu waa régie ak caméraman yi ci kanam incha allah rek ñu dellu si ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak euh, ñaar fukki fan ci weeru koor ba muy daje. ak mhm. kii di Cheikh Ahmadul Khadim. d'accord mhm. euh, ci kanam tuuti lay doon euh, Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyu góorukat yi. asalaamaaleykum wa maa ngi lay fay soxna biti. na sëñ Sidi Alaaji Sa Ndiogo sëñ Sidi ma nga fa. ngi ci jàmm bu baax ak di nuyu soxna sëñ Omar Gueye sama xarit. di nuyu Cheikh Soxna bu Diop. ak euh, mbooleem ñu nekk ci palaato bi di nuyu ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu kàddu fekk leen ci jàmm. allahumma amiin euh, Sa Ndiogou Mbengue Alaaji maa ngi lay nuyu. Adja ñu ngi lay fay. ñu ngi am mbégte ak kontaante vraiment di dem ba Touba di nuyu xalifa général des Mourides Serigne. mun Muntaxa di nuy sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke di ko ñaanal jàmm di nuyu sëriñ Xaarim Fall nekk ci kër ga di am ci moom mbégte kontaante di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom ak kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp mm-hmm. ñu ngi nuyu Mama Jeyna ba Fall bu baax baax di ko di ko ñaanal jàmm di nuyu mm-hmm. sunu tonton mu Lo mm-hmm. di am ci moom mbégte ak kontaante voilà di wax ni di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi yëpp Oumar euh, sooy waak Cheikh Baara mais aussi di la nuyu di wax ni tey incha allahu rabbi pajum cosaan danañ ñëw ci ay point yu am solo sénégalais yi xam naa ne ñi ngi ñuy xaar waaye dinañ ñëw ci ay point yu am solo di wax ni bétti xanaa dangaa am douzaine mbaxana man de vraiment sa mbaxana yi bari na xanaa yow ba gaa duggoon xel wa ñu ne la loo bëgg nga ne mbaxana doy na wax wala mu am boutique amul boutique duñu ko nangu da ngaa dugg xel wa ñu ne la loo bëgg nga ne mbaxana waaw léegi d'accord léegi yow rafet na bu rafetul ma ba ko waxal une semaine mbaxana rafet une semaine mbaxam. waaw rafet na wala ah, mais mbaxana dafa bari quoi. deux semaines mbaxana cinq jours mbaxana. mais est-ce que amul boutique bu mbaxana. maa ngi lay nuyu di la ziar yoo xam naa doo wax loolu. wallaay du ma la wax loolu yow loo def a gën loo deful. jërëjëf Diop waaw yow loo def rafet na. jërëjëf Diop xam nga dafa am loo xam ne yàlla ñi mu ko may bariwul. waaw koo xam ne lu mu sol mu dem. macha allah yàlla am na koo xam ne bu solee yëre olof. Ah. ñu xool ko tuuti waaye saa <laughs> ñoo ngi lay nuyu ajaratu maa di nuyu Serigne Bara Ndiaye ak Alaaji Sanjogu Mbeng ak Omar Bun Xataab Gueye di wax ne ci kanam tuuti rek daañu ñëw ci victime di net incha allah mm. d'accord régi ngeen jox ñu tampon dellu <laughs> waaw euh, kooku moom mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. Babul Mouridina Lamp Lamp Fall. Mhm. tey ji nag euh, ñu fas a ko waxtaanee prétexte bi doon ñaar fukki fan ci weeru koor ba muy daje ak kii di Cheikh Ahmadul Khadim. Mhm. ndaje moom de waaye mën ñu yokk aussi prétexte bi ci tey laylatul xadri bi ah, ci kanam incha allah. macha allah dinañ ko ci <laughs> dinañ ko ci soof. jabaare mooy mooy sunu sëriñ. ñu <laughs> ngi noonu hmm, kon. kon en attendant en ñu ñëw ci ñaar fan ci weeru koor boobu la rek ah. Uh-huh. di fàttali di di. kii di maam Cheikh Ibrahima Fall. <laughs> Eh, mi ngi daje ak Serigne Touba ci 1301 ci weeru Isir ah, moom nag mënoon na doon buur ci atum 1855 la la juddu moom kooku la di maam Cheikh Ibrahima Fall doonoon daal ku modeste doon koo xam ne ten am taalibe maanaam buur gi mu waroon na doon sax da ko mujjee jëndee ak taalibe waaye jël lépp jox Cheikh Ahmadul Khadim ba mu eggale ko fi mu egg tey ji moom kooku la di maam Cheikh Ibrahima Fall ci atum 1930 nag la làqu ca diwaanu Diourbel moom nag l mu doonoon tey jii philosophie bari na ñu koy doxee ba ci koor gi ñaar fukk fan yooyu nag ñu koy waajal dina ci am nag taxawaay bi yu rëy bi ci xalif général des Baye Fall di amal di Serigne Cheikh Jëmb fal waaye Serigne Cheikh am di Fall moom mooy kii yóbbu ndog yi bëccëg boobu lee di ñaar fukki fan nag ngir fàttalikoo dañuy ànd ak wari Régis ñu am lu ñu ci dégtal. daa gëm ne dabe ndab dabe ndab waaw maam Cheikh nee na mhm. ku bëgg a dëb góor yàlla yi nee na jullit ñi leel ñu lekk ba suur boobu rekk a fi des dëgg joxe ñam joxe ñam te xam nga Touba moom mooy seen yéegukaay. mooy seen léegi nag maam Cheikh Ibrahima Fall bi sëñ Touba nekkee ndar. Mm-hmm. te Cheikh Ibrahima nekk ndar. nekk ndar Touba bi jàpp jël sëñ bi yóbbu Gabon. Mm-hmm. Euh, Cheikh Ibrahima Fall daana wut ay gàtt. Mm-hmm. ay gàtt yu baax yu baax. di ko muusal. muusal. bu noppee mu def ko ci bërigo. bërigo tëj ko. tëj ko tëgg mu ñuy wax bay gay yelli. bay gay bay gay yelli. bay gay yelli. ca ndar ca ndar moo daan suude bërigo yi. ndeysaan bu ko suudee. Mhm. mu yónnee ko côté dëkk Gabon. mu ko dëkk Gabon. waaw ah. ndeysaan sëñ Moussa Ka wax na ca woywa. woywa guddeeg ba ca ñam ya di ñëw. ba Bamba xëy sàkkum pexe. sàkkum pexe ndeysaan. kon Cheikh Ibrahima Moussa deñ mhm. joxe ndab joxe ndab. bi mu nekkee Thiès it. Mhm. sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng doomu sëñ Mour Moussa Fall moo ma ne. Cheikh Ibrahima Fall daana togg ay ndab. teg ci sa saxaar teg ko ci saxaar gi ñëw rëgër ndeysaan saxaar gi bàyyi koo Cees mhm. jaar mu wàcc ndab yi mhm. donc nga yenn ko yóbbul ko bàkki am na ci bis boo xam ne sax mhm. maam Cheikh daa war a togg ndab yi ku tedd kooku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dajale mboolem la cay dem ba mu des ndawal amul ndawal naar jiital gëléem kaalawu kaalu rëy ndax nee na daanaka mat na fukki kaala ak nangam. lañ ci jublu mooy bu gërëm gi meree buy sëq ci seen bopp yam ci kaala yi. yam ci kaala yi. bi mu ñëwee yësal gileem ga nuyu Cheikh Ibra Fall na ko gileem gi dama koy jaay. Mm-hmm. maam Cheikh na ko ah, bëgg naa ko de waaye aw ma xaalis. soo ma wóoloo nga lebal ma ko. <laughs> mu ne ko wóolu naa la ko daal di koy lebale. Mm-hmm. ci fanweeri dërëm. fanweeri dërëm Baye Ibrahima Thiam nee na Cheikh Ibrahima santaan ñu defar gileem gi. ndeysaan bi ñu ko defaree. Mhm. nee na laataa bëccëg gi ñu boole ko añ yi. Mhm. mu dem mu dem Cheikh raa ngi toog naar baa ngi toog. waaye maam seex nag mbooloo maa ngi raam ku ñëw nuyoo dara. waaw fa Fall day téye ba ko fees mun a gees na ana borom gileem gi. mun a maay mën a ko am. am ku ñëw nuyoo dara. Mhm. maam Cheikh téye ba loxo fees mun a gees na ana borom gileem gi. mun a maay mën a ko am. Baye Ibrahima Thiam nee na naar bi lu mu dajale li ko Cheikh Ibra Fall jox mat na ñeent téeméer ci xaalis te fanweer la ko maam. te fanweer la a bi Cheikh Ibra mhm. mu mhm. na lim ko jox ëpp na ko. ëpp génnee def na gees naa doom ana borom gileem gi. Mhm. ñoo ko Fall dem na mënoo feeg jant yi so. lu fi dëkk moo ko mu ngir sëñ Bamba. feeg jant lu fi dikk rek moo ko moom ngir sëñ Bamba ngir sëñ Tuuba parce que xeetale gi mu ko xeetale ci añi ku tedd ki añi ku tedd ki tax na mu nar koo jox lu jël ñeent fukki giréem la ilaha illallah ñu ngi noonu doon lu am solo ñuy gërëm nag sunu naataango yu Sénégal 7 ah. Mhm. leen gërëm bu baax a baax falan solo. Mhm. Euh, xibaar bi li nag doonoon ab jukki rek euh, boo xam ne tànnoon nañ ko ci ngir waxtaanee rek euh, jëm ci ndog yu ñu yóbbu ci jamonoy koor boo demee ci Touba Mbacké ba ci Ndakaaru ñu bari ñu ngi koy toppandoo ak ndaje mi Cheikh Ahmadoul Khadim daje woon ak kii di. Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ca Mbacke Kajoor mu doonoon lu am solo tey ji mu mel ne bernde ak joxe ñam ci mouridisme lu am solo la mais Cheikh Bara Ndiaye moom xam naa ne yoon woowu mu ngi koy gën a miin ñu bàyyi la rek nga dellusiwaat ci bis boobu la ak diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak kii di Cheikh Ahmadul Khadim. ñi lay bégewaat bu baax a baax a baax. di nuyu waale yaa Sayda Fatimata say ndiir ak euh, borom këram ak njabootam yëpp mhm. ni nga thème boo xam ne maanaam thème actualité la te nekk thème boo xam ne lu mat a waxtaane la muy e, jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ndax xam naa ne ñu baree bari ñi ngi dégg turam di gis ay mbiram di dégg Baye Fall waaye néew na lool ci plateau yu mel nii di ci waxtaane jëmmam ak aw doxalinam ci e, àdduna mhm. su ko defee nag loolu boo ko indee dafa bari lu mu mën luñ mën a jàngal ñi nga xam ne dañuy topp mhm. Euh, di ci siyaare bu baax sëriñ Cheikh Jëmbu Fall di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. di siyaare bu baax sëriñ am Amdi Xadi sëriñ Cheikh Ndigal Fall sëriñ Cheikh Fall war ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima gépp mhm. soo waxee nag guddi ñaar fukki fan yi tamit sama xel day dem ci suñu papa yi bopp ja Serif Abdourahmane Fall Tilala. nga mhm. xam ne moom ci li ma jàpp. ñi ko njëkk di màggal fii ci Sénégal moom ci la bokk mhm. moom Serigne Abdourahmane Fall di ko di nuyu Serigne Abdou Assis Fall euh, ab xalifaam ñoom sëñ làmp ak euh, Serigne Fallou Fall ak ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax ci bis bi di euh, nuyu waale tamit soxna soxna Seynabou Fall moom sëñ Abdourahim Fall moom itam mhm. ku jàmbaare la ci guddi ñaar fukki fan yi koor gi mhm. bu dee Seex Ibra nag maanaam Kajoor la dëkk fa la juddoo. Euh, ne bokkoon ci askan wi nga xam ne maanaam dëtt fu njóogu wala bokk euh, dëtt fu njóogu mooy ñi nga xam ne ñooy dameeli kayoor yi rek. Mhm. ndax kajoor moom euh, ku ne xam na ne seen royaume boobu ku sant Faal. Mhm. moom moo koy mën a donn Cheikh mhm. Ibra nag dafa bokkoon ci wàllu baay. ci dammeel yooyu nga xam ne mënoon naa nekk teeñ wala ab dammeel wala mu nekk ab lawax wala yu mel noonu daal. waaye yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne maanaam nag ci wàllu ndayam tamit dafa dëkk njare njare njaay ndax ku ne xam ne ne sëy na bu njaayee ko jur ahmadou fall mi ko jur tamit ku ñuy wax roqee njaayee ko jur nga xam ne moom daanaka sax damay wax ne benn maam la am bu sant fall mais yeneen maamam yëpp ñu ngi dëkk njare mu nekkoon foofa nag bi mu demee ba xaw a dëgër nekkoon ku bëgg diine nag te teel a mën a alxuraan teel la bëgg ay xeeti wéet di jaamu yàlla ak di xeeñtu yoonu yàlla yu ñuy wax tasawuf ci la dem ba xam dégg xabaaram daal ci wër gi mu ko doon wër ci mbooleem sëriñ yi mhm. ndax euh, nekkoon na ci fu ñuy wax Tayba Dakar gis ko ñuy wax sëriñ Tayba dafa wut yàlla ba sëriñ Adama Gueye fekk ko fa su fekk sëñ Touba yónni ko foofee mu fay wut si ay këyit mhm. yu ko sëñ Touba wut si ci tey sëriñ booba ba mu ko gisee mu ni ko sëñ Moussa Ka waxee mu gis fa Cheikh aadama Gueye sànni mbiram dal di ca mooy mu wan ko bàmba mbër mu rey Cheikh Ibra topp cay texe mhm. euh, mu daal di ko ne yow mii de fa nga jóge bëgg naa faa dem mu daal di ko ne ñun de ñu ngi jógee mu leeral ko rek ci gàttal ndax euh, temps bi moo dul bari mu leeral ko ni mu fi mu jógee ak mm-hmm. kam fa bàyyi muy sëñ Touba. Mm-hmm. mu nu ko yow daal booy dem dooma fi bàyyi ñu ànd mm-hmm. dem mu fekk sëriñ Touba Mbàkke Kajoor bi mu demee fekk ko Mbàkke Kajoor daal di agsi waxante ak moom ñu nuyoonte waxante ak moom ca waxante yoo xam ne waxante yu kawe la ci kuy soobu ci yoonu yàlla ndax alquran nee na inna lasina yu bàyyoonaka innama yu bàyyoona allah yadullahu fawqa aydikum li ñuy wax mu bàyyoon ak foofu yi la ko Cheikh Ibrahima Fall defee mhm. ci kanamu Serigne tubaa euh, ca fu ñuy wax gis Bamba tey ji sax boo demee mm, Serigne Sidi Muxtaar mi ngi ko doon tabaxluwaat mhm. ñu ko defarloo ko ñu wax Serigne Babacar Mbaw bu ndéem mhm. pour ñu defar ko ba mu gën a mucc ay pour nit ñi di ko mën a siyaare ndax foofa euh, fala la Cheikh Ibra àndeek sëñ tubaa ab àndam ak sëñ Touba nag dafa nekk loo xam ne dafa dem ba laal euh, ñi dul murit sax suñu bëggee jëfandikoo maanaam bu ñu bëggee jëfandikoo seenub sëriñ ca nañ ko bëgg a jëfandikoo ci jëfandikoo gi gën a rafet mhm. faaw dañuy dañuy tibb ci philosophie bi Cheikh Ibra doon jëflanteeg sëñ Touba mhm. man koo jëf jëfandikoo moom mhm. ndax bi suñ Cheikh Ibra ñëw ci sañ Touba mag ñi wax nañ ne dawuñu fekk sëñ Touba nit da da ko maanaam da nga daan ñu naan ko àll ma sa daaji ma bind nga mu àll la daawam nga toog bind mën ngaa fekk sëñ bi summi ay dàllam sax nga sol ko dem mën ngaa ñëw fekk sëñ bi toog nii nga ne ko puusal nii mu puus nga toog dend ak moom yooyu yëpp daal ñun ci ni lislaam tërale loolu nekkul woon loo xam ne ñun aayaloon nañ ko ci suñu diggante ak suñuy sayx Cheikh Ibra nag bi mu ñëwee moo indi nag ne kenn dootu nuyu sëñ Touba sol ay dàllam kenn dootu sol ay dàllam kenn du ko kenn dootu ko sàllalu kenn dootu bind ci daawam kenn dootu ko wooyee tamit turam di ko sàllalu di ko sàllalu di ko wooyee muudu Mbàkke rek wala muudu Bamba rek mm-hmm. déedéet faw koy màggal daal di wax ne moo tax mu mu nag nit ñi di xëntawoo jàng wird yooyu moom muy euh, muy muy muy muy muy yendoo liggéey fanaane root dégg nga ba ba nu mu ko waxeeti yendoo liggéey fanaane root góor ñee nelaw banaa xoyat ba mu naan fóore ja raw ja sant saaw naan ko jàngil riitu dum pexe loolu la nekke woon ci sëñ Touba mooy koo xam ne dafa ñëw rek jël sëñ Touba teg ko ci kaw maanaam ba sëriñ Touba def ci moom li ñuy wax ak ceex. Mhm. ca tuubaa la ko seexale bi mu ko seexalee itam moom ku ne xam na ne daara moom Seex Ibra li mu daan wax mooy daara la. Mhm. maanaam ba faw la. Mhm. maanaam nekkut loo xam ne day tekki laxasaayam. waaye daana nag nekk ndar ak cees ak ak di sanc ay dëkk waaye lu mu mas fu mu mas a nekkit sëñ Touba daal la fa nekkaloon bu bayee moom la koy indil lu mu am ci sëñ Touba la koy amee bi sëñ Touba jógee ci géej gi foofu sax laay tënkee bi mu ñëwee daf koo laaj seex daf ñu daje. mu laaj ko ñaata nga yor ñoo yor ci kër gi Cheikh Ibra wax ba yeggal mu ne ko damaa bëgg nga yeewi leen damaa bëgg nga yeewi leen ci saase Cheikh Ibra ne ko yeewi naa leen soxna yëpp mu jël soxna yi jël kii may Cheikh Issa Diène jël kii jox kii jël kii jox kii jël kii jox kii ba soxna yi jeex loolu sëñ Touba defloo na ko Cheikh Ibrahima Fall pour wax la rek Baye Fall du ak cëfër cëfër ak takki njara waaye nangu loo xam ne kenn du ko nangu boo doon wër ku koy nangul yàlla doo ko gisaat ku dul ab Baye Fall loolu mooy Baye Fall mhm. parce tey nit nga ñëw nuyu ko bàyyi sa kër samp ko ak sa njaboot ak say soxna a mhm. ba mhm. yi ña ca kër ga yeewi leen mu ne yeewi naa leen mu jël ko ne ko joxal kii diw joxal kii diw joxal kii diw mu jël yëpp mayaat ko ay nit ci kanamam ba mu jeex Cheikh Ibra dese yàlla képp mm-hmm. waaw jërëjëf Cheikh Bara mënoon nañ gën a wéyal mais sama bi rek may ñëw <laughs> dama bëgg mujjee ak yow baatu nangu bi maanaam te ñun mu jafe ñu même suñu nekk ni sax bu jafee tey jii <laughs> même fu ñuy yëngoo nii nangu moo ñu jafe nangu boobu Cheikh maam Cheikh amoon ci digganteem ak Cheikh Ahmadul Khadim saa euh, loolu pour yow lan moo koy maye. waaw euh, li koy maye. mooy toll benn niveau bi rek. xam nga macha allah xaw man maam Cheikh Rahima Fall Baye Mourou Diine daa maam say Ndiaye Baye Modou Moustapha maami Cheikh Fall Baye bu góor. Hmm. gànjar ak yoon wi waaw macha allah. <laughs> nee na ndigal caabi la bu ëppee du bi bu manqué du hubbi boo ko jaawalee yàq kàndaar ndigal wurus la ci biirub leget boo ko jógee ci géttug bëy ya ñu caawale ko kàdd boo ko joxee tëgg bu ko xàmmee bu ca noppee ak saa saayikoon waaw maam Cheikh Ibra Fall dafa xam li sëñ Tuubaa doon kan mooy sëñ bi moo tax li sëñ Baara wax noonu wane ni ñam fa fekkoon xam nañ sëñ bi waaye fa maam Cheikh Ibra Fall toll ba tax am règle yoo xamante ne bi après indi na ko ba mbir yi di doxee noonu donc loolu mooy mott li nga xam ne motti na ko parce que war na leen ne kii am na yoo xamante ni bi que ni après kenn sañatu ko fa maanaam summi ay dàll ak affaire yooyu yenn yu bari après amatut. Mhm. donc nga gis ni dafa am yoo xamante ni bi dafa ñëwoon tamit ngir mottali taalibe yi. Mhm. ngir ñu mën a nekk taalibe dëgg dëgg dëgg. loolu nekk loo xamante ni bi lu am solo la kon moom bi muy ñëw xam na li mu bëgg te xam na ni nga xamante ni bi noonu la koy amee. Mhm. loolu nekk loo xamante ni vraiment lu am solo yow yow ni xam naa ni am nga ay relation yu bari ak euh, ñoom ñoom Assane ak ñoom seen te ñoom ñu ngi ciy bay seen waar. Euh, tey jii euh, li li jëm ci <laughs> Baye Fall gi. voilà nangu gi ak li jëm ci yóbbu ndogu bi. man loolu dafa ma marqué seen ñoom ni ñuy doxee. di ko mm. def te ay atang ngi macha allah. démb rek li ma gën a inspiré ba tax ma indi maam Cheikh sax mu ngi feeñ ci école des jeunes mariés mais bi waaj naan. bari na ñoo xam ne ñu ngi dëkk dëkk dëkkaan yi war Touba. Mm. koor gi da leen di arrangé ba ba mënul woon ci di ko xewloo. koor gi da leen di arrangé ci ndog yi ñuy joxe ngir ñu koy jëfandikoo mu mel ne joxe ñam foofu beneen affaire la. Mm-hmm. jaajëf euh, Omar bun Xataab Gueye saa moom xam naa moom tabarkàlla. Ah, bàyyi ah, faal bi la xam tey de moom mooy loolu. Ah, waaw li mu riim nii doy na waar. <laughs> en tout cas muy lu am am mi ngi tooñ Assane Mesere sax naan bàyyi foo la. Assane bu baax. taalibe Cheikh Ibrahima Fall boobu. Assane am na ay dafa mi taalibe. Eh, eh, <laughs> xam nga. Euh, Euh, sëñ Baara dafa dafa commencé foo xam ni euh, Omar bin Khattab gi mu ci nangu te loolu nga laal saa. nangu la ñuy ñëw ci loolu muy nangu. lu ñu jafe. Euh, loolu gis nga ni ma doon wax ni tey mm. kunkaati man bu ñu ko jàngale woon ci suñu école yi. Mm. ak suñu université yi grève du am ñaxtu du am xiifal du am dara du am. Mm-hmm. gis nga tey Cheikh bu ñu jàngalee woon nangu gi mu nangul kilifa. Mm-hmm. lu baree baree bari dana sotti ci réew mi. Mm-hmm. koo xam ne tey Omar euh, dem nga ba boo toggee da nga ne du ma ci ñam parce que su ma ci ñamee sama sëriñ ab des aw des laa koy jox mm-hmm. kooku am na fu mu teg sëriñam mm-hmm. dama nga xam ne nee nga doo jaar ci turam kilifa gi ngay wax mm-hmm. kenn mu sëriñ Cheikh Ibrahima jaar ci turam kilifa gi lay wax nga xam ne sëñ Baara leeral na ci li mu soppi ci xar kanamu euh, sëñ Tuubaa lu baree bari ñu daan togg taalal seen loxo ñi ko daan sàllawlu ñoo xam ne ñu def ko euh, mu nekk tamit ku amoon vision la maanaam ku sori woon ab gis-gis la mhm. yaa ngi dégg digganteem ak sëñ Fallou xissa bi ñu ciy nettali ca ba mu ko fekkee ca lal ba ni ko bul ma fàtte mhm. euh, ba sëñ Fallou demee ba xàmmee gis nga ba mu tabaxee li nga xam ne mooy jumaa ji ba pare li mu wax kaa euh, nga xam ne gis-gis bi mu amoon ñu bëri dañu foog ni Baye fal daal moom ñàkk julli ñàkk woor la te Cheikh rek suñu bara laal na ko ku jàng la woon kenn rawu ko woon doomu soxna bu bu ah, jàng la bu am xam-xam la boo xam ne réeréewul woon diineem la mhm. léegi nag yooyu yëpp nag bu amee Eh, lii tax nag ñu mën a xam dëgg-dëgg Cheikh Ibra du rek ñi ñuy gis ci mbedd mi Omar bu ñu Xataab Gueye foofu surtout foofu laa gën a mën a kiyee mm. ay nit la koo xam ne boo gisee couleuram yooyu mu soloon du ay couleur yu njaxas yoo xam ne daf ko doon jël di ko ñawante boppam bi mu daan bàyyi muy sëq ak di ak ak ak karaw gi di ñëw li li ko indi woon mooy dafa demoon bu ñëwee ko lu tax nga bàyyi nga mën a bàyyi sa karaw gi mu mu mu sëq mu ni euh, loxo boo xam ni mu ni loxo sëñ bàmba bu tedd bi di jël loxoom di ko teg ci sama bopp bi di di ñaan di tëfli karaw googu du ko war du ma ko ba ilaa yumil abat nga xam ne loolu lépp dafa nekk ay mbir yoo xam ni euh, dafa jara roy ci Cheikh Ibra pour ñu leeral ko ñu bañ a wax ni rek Cheikh dafa jëloon karawum sëqal ko di njañaka di fi yëf euh, nga wax ci ndogu li xam nga togg ñam di joxe Omar bun Xataab lu am doole la ci lislaam euh, nit jóge jële nañ ko safara yóbbu ko aljanna ndax joxe ñam wax nañu ni ci benn nettali dafa am soxna soo xam ni dafa doon jaay guddi dafa doon guddi di jaay boppam bi mu demee ba dëpp jaay boppam ba dëpp mu romb benn xaj bu nekk ci taatu euh, teen mar soxna si xool ko yërëm ko xam ni dafa mar mu ngi taxaw di génne làmmiñ bi mu jël dàll bi nga xam ni mooy seen kok kii boobu daal di koy jukki ci teen bi fexe ba xaj bi naan ba pare ñu wax ni soxna soosu ginnaaw yàlla bu texee bu soppi ko bu duggee ci li nga xam ne mooy euh, ci ci ci ci ci ak texe ci ginnaaw yàlla at boobu mu def la nga xam ni joxe ñam dafa am doole ci lislaam Cheikh Ibrahima nag kenn xàmmewu ko lu dul togg ñam joxe fàtte boppam jox nit ñi koo xam ni foo fekk nit ñi mën a toog suuf bàyyi leen ci kaw lu rafet nga jox nit ñi jël li gën a suufee koo gis jàpp ni moo la gën yow da ngaa xeebu loolu nag wax dëgg yàlla jàpp naan réew mi bu ñu royoon doxee nu Cheikh Ibra réew mi du am benn problème xeex du am xuloo du am xeebante du am parce que Baye Fall ku mu gis boo jàpp na ni yow yaa ko gën. Mhm. Euh, ñu am philosophie yoo xam ne ñoo tëj àddina mooy jëf jël ñàkk jariñu ndimbal ak yërmande ñeent yooyu buñ ci taxawoon rek adduna bi hmm. du bëri ay rëngi-rëngi pour mu la ne ay bari yi gàtt la woon mais philosophie boobu buñ ko doon doxee duñ toll fii ajaratu damay gàttal <laughs> eh. ah, parce que dama daan dégg hmm. Baye Fall yi di wax naan buñ leen gisee ñu yalwaan ñu ne Baye Fall mooy ki nga xamante ni dafay liggéey joxe hmm. euh, saraxu yalwaan dundee donc muy loo xamante ni euh, liñ ci mën a jàng ci moom en grosso modo mooy taalibe taalibe parce que am na ñuy ñuy mbubboo turu taalibe mais sori nañ taalibe lool. Mhm. te man dama naan moom référence la booy xool taalibee ba daj ci moom. Mhm. da koy def sa référence. Mhm. ku xool ci moom doon taalibe. mais mais ba ñetti at la njëkk a la njëkk ñëwee àdduna Cheikh Ibra. at la ko fi mujjee maanaam sëñ dafa gane àdduna ba am trois 300 Cheikh Ibra ñëw. sëñ Tuubaa génn àdduna am 300 Cheikh Ibra dem ñëw bokk même at yu ñu dund ci àdduna. seen xilaafa gi tamit juróomi doomi sëñ tubaa ñoo toog xilaafa juróomi doomi Cheikh Ibra ñoo toog xilaafa maanaam dañoo nuroo ay mbir waaye di nuyuwaale waa kër soxna may Mbàkke ci laylatul xadar gi ak waa kër Cheikh Masamba waa kër sëñ Mudu Faati Xari ci Daaru Karim ci guddig laylatul xadar ma kii fay mi ngi koy woote fii ci mm-hmm. Masaalikul Jinaan incha allah di ci fàttali mbokki jullit yëpp mi ngi mi waxtaan wi neex na mm-hmm. dafa dafa intéressant ci mm-hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall ci oyof gi ak euh, suufa gi te pourtant punkal <laughs> bi may gëstu ci alxuraan dafa jàng mënoon a doon mhm. buur mënoon a doon lu ne mais du rek ku mu dajaloon rek jox la boppam mhm. parce que bi mu demee ba dajeeg Cheikh Ahmadul xadim euh, am na ñu mu njëkk a dajal mais daf leen fa ba mhm. mais bi mu eggee Cheikh Ahmadul Khadim daf na garab bu la sutul du la may ker mu ne kon garab gi moom moomu sut boobu kon ki mu doon wër moom gis na ko di Ahmadou yooyu yëpp gars yi nettali nañ ko ci si maam Cheikh Ibrahima Fall mu ku bëgg doon mbaxane bëgg a jur mbaxane da ngay nangoo doon dàll maanaam suufi gi mu soo moo ko yëkkati tey ji ba tax ñu naan ko lamp Fall ca diwaanu Touba Mbacké mm-hmm. euh, boo duggee Touba rek lamp ngay njëkk a gis mi leer tolloon nag liggéeyam ak nangoom moo ko may ajaroon en am na solo nañ leen gëstuwaat sunu mag ñu baax ñi parce que nag xool ci ñoom defe naa ne doo réer te doo wàcc yoon donc ah. loolu am na solo ñu daal di dem régi rek jël tampon pajum cosaan ca kàddu gaangoog yi jërëjëf Ajaratu Beti Mbuub <laughs> ñëw nañu ci li nga xam ni mooy seen rubrique bu